yéen a ngi seetaan GM Info TV. solution bi nag defe naa ne élection yi jëm mooy solution yi donc ñu ngi leen di ñaan yéen waa jam ñaaño élection yi jëm ay élection yu am solo parce que mandat bi ñuy joxe yéen a koy joxe du keneen yéen a koy joxe ku fi nekk yéen a ko fi teg donc dafay laaj si mandat bi jeexee ku nekk xayma di commune bi def. ñun duñu defal kenn bilan ku nekk si jam ñaajo xam nga lii dox xam nga lii doxul donc loolu je pense dañu leen di bàyyee ku si nekk nga def sa diagnostic bopp nga xoolax sa bopp sa aqulaay taala xool ndax may mandat bi ñu fi joxe li ngeen dénkoon commune bi def nañ ko wala def ñu ko et en conséquence ngeen def seen choix parce que nag politique loolu la ñun ñooy tànn ñi ñuy jiir mais su leen tànnee su échéance bi jeexee ku nekk war ngaa xool ndax li ñu ko dénkoon matal na ko wala matal na ko instant dafa am solo dafa am solo parce que nit dañ koy mu nekk si li mu nekk fàtte population bi ñun de ñu ngi leen di waata fii ne su ngeen ñu xalee incha allah rabbi si seen aajo rek ñuy nekk parce que jàpp nañ ne population Diamniadio sonn nañu sonn boo xamante ne il faut am ñu leen wàllu donc ñun si doon lañu nekk si doon lañuy dox si monsieur le maire la si man loolu yàlla moo ko def maa ko def kilifa la si man loolu tamit yàlla moo ko def maa ko def suñuy njaboot bi duggante nañu mais wàllu politique politique ku nekk am nga sa idée ku nekk am nga sa projet de société ku nekk am nga sa vision te jàpp naa ne ku nekk mën nga doxal li ngay doxal si respect si discipline si yarax teg am na ku ñu si aar doon te ku ñu ko def tamit jéggal nañ la. c'était juste une déclaration de candidature dañ fi ñëwoon rek pour wax leen ne ba ñëpp dégg ko mu leer si ñëpp ne ñu on est candidat à l' élec à l' élection municipale de janvier 22. léegi wax nag su ngeen defee seen fan yi ngeen wax ak askan wi wax leen ne élection yi am na importance trop te fi ñu jëm yàlla xam na ne su ñu defee un mauvais choix. yaakaar naa ne li ñu la weesu duñ ko mën a donc mu ngi leen di ñaan ku si nekk na nga xalaat bu baax am na yoo xamante ne ay pratique la ngeen ngeen waru kaa nangu ak ak tool bi ay jox la benn cinq mille wala wala wala jox ma benn ordre de recette te loolu bëgg naa si waat parce que ordre de recette dem naa ci ordre de recette la suñuy am alors que ordre de recette c'est juste kayit dafa nga tey amul leneen loolu c'est pas un titre de propriété titre de propriété ñëpp xam nañu lan la. donc ñu bëri ñooy jox ay autorités sax di leen ndax fekk yàlla xam ne amuñu dara ndaxee mbaay. président de la République war nañu jàppale ko ñu corriger cette situation là parce que on acceptera pas d'être du bidon bi du góor humain ñun maa ngi leen di du góor humain loolu moom te nangu parce que fii suñu suñu suñu suñu suñu terroir suñuy suuf la ñu jël érigé ko le pauvre humain donc war nañoo xalaat gëstu ñun pour que tamit gis suñu bopp. un GM Info TV.